الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مبقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما نيو كنا ci turam ak ci jëmmam di ndokkeel ñépp di ndokkeel sama bopp ci bés bi ak ci jotaay bi ak ci li waral jotaay bi yàlla dafay wax ci alquran ne walamma ra'a almu'minuuna al ahzaaba qaalu ma waadana allahu wa rasuluhu wa sadaqa allahu wa rasuluhu wa ma zaaduhum illa imaanan wa taslima min almuminina rijalun sadaquu ma aahadu llaha alayh fa minhum man qada nahba wa minhum man yantadir wa ma baddaluu tabdila liyajziya allahu alsaadiqina bi sidqihim gannaaw bu ñu ndokkalee suñu xarit suñu soppe suñu genn wàll nga xam ne mën naa dëggal ci sama digganteeg moom wax ji yoonu sallallahu alayhi wa sallam wax ne allah tabaraka wa taala axa bayna arwaxin wa arwax yàlla dafa mbokkale diggante ay roxo ak ay roxo balaa jëmm yi di feeñ ñu gisante ma gis ko sopp ko mu gis ma sopp ma cofeel googu noonu am na ay at ñi ngi ziyaarawante ci yàlla ñi ngi déggante ci yàlla ñi ngi gisante ci yàlla tey bés yi bési tey bi luy feddali loolu noonu la bés bi nag dañu ne yàlla dafa am ci bési jamono yi ay uppin yu muy upp ñu ne gaarlu leen uppin yooyu noonu ndax mën naa am ngelaw upp leen ci ngeen texe texe goo xam ne texe addi dootu ci bokkati mukk te ñu ngi am yaakaar ne bésib tay bi ci bés yooyu noonu la ndax yoon sallallahu alayhi wa sallam daf ne inna majlisan waxidan min majalisil xayri tukaffiru alfay alfa majlisin min majalisi suu mu ne benn jotaay ci jotaay hiw dafay kaafara ñaari junney junney jotaay ci jotaay caaxaan maanaam ku toogoon ñaari junney jotaay ci jotaay caaxaan boo ko tëjee ak benn jotaay hiw daf koy kaafara te ñaari junney jotaay ci jotaay caaxaan mooy million yi jotaay caaxaan sëriñ bi maa ngi lay nuyu di jàllale mbooleem nuyoo yi nga xam ne maa ngi koy nuyu usrati cheikh alxadim cheikh Ahmed Bamba radiallahu anhu ci sa loxo nga tegal ma ko ci loxo alxalifa cheikh Mouhamadul Muntaqa atalallahu baqaahu ak mbooleem ku nekk ci ronam ci famille cheikh alxadim cheikh Ahmed Bamba radiallahu taala anhu maa ngi nuyu mbooleem ñi fi teew di jagleel nuyoo ñi jugee ci këri këri diine yi fuñ mën di fa jugee waaye di gën a jagleel nuyoo sama soppe sama xarit Seydi Ahmed ibn cheikh yi cheikh Abdul Aziz ibn al Allaama cheikhina cheikh El Hadj Malick radiyallahu taala anhu damay wax ne jotaay bi. dañ koo sos pour fàttali ci cheikh Mouhamadul Amin Baara ibn Cheikh al waaye amul niti yàlla bu nekk senegal lu dul ne tudd nañ la ci jotaay bi loolu dafay feddali ne ñëpp benn lañ ñëpp yàlla leen tax a jóg te ñëpp tamit yàlla la ñuy liggéeyal te loolu Serigne Bachir mii mi ngi ciy def mi ngi ciy bay waar wu yaatoo yaatu ñi ngi ñaan yàlla mu bëril ay kemam. di wax ne lii ci la maam yi nekkoon ndax cheikh alxaaji malik si dafa génn àddina talaata cheikh ahmadou bam cheikh alxaaji abdallahi ñas génn àddina àllarba cheikh mbàkke buso defal leen marthiya wax ci marthiya ba shamsun wa shamsun ama shamsin gaabata fa bakal wara li takaasu fi ñi ngi ndokkeel Serigne Mouhamad Lamine ci bés bii nii di ko wax ne ko liggéey bi liggéey maamam la te lii dëggal na ne liggéey maamam dafay sax ba àddina tukki du jeex mukk ndax maamam dafa nekkaloon yàlla nekkal yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla fay ko lim ko lim ko fay wax na ci gaal gi ne allamani rahmaanu fi safina bi annani xaadimu dil madina loolu fay la wax na ne ilaya qaadallahu maa lam yakuni wala yakunu abadan li mumkini bugguñoo guttal ci lii ndax timis mën nañoo fekk ñuy wax ay ngëneel ci Cheikh Ahmadou Bamba mi nga xam ne surafaaw yi ñëwal nañ ko tagg nañ ko ahuzzuka bil amdaaxi taaliba thamratin wa inda ihtizaazil adwaaxi tasaaqat thamar bu ñëwee dañ lay tagg ci ay melokaan yu mag a mag a mag te xam nañ ne datt moom saa yu ko yëngalee rek meññan ma wadd kon jikko yu kawe yooyu noonu wal yumnu fii yumnaaka wal yusru fil uxra wa baaqil mazaaya bayna aadaayka al uxra kon Cheikh Mouhamed El Bachir ñu ngi lay gërëm di la sant ci cër bii nii nga xam ne jox nga ñu ko di ñaan yàlla yàlla na yàlla dëgëral kóllëre gi yàlla ko yàlla saxal yàlla na ko yàlla yàggal te yàlla nga yàgg feete bés bii nii te képp ku fi teew rek yàlla na la yàlla defal ci yool ak ci loo xam ne kawe na sa njort partout ci barke ñi ñuy fàttaliku ak ci barke nit ñu baax ñi fi tudd ñoom ñëpp wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf Niass kàddu yi rafet na am na solo yal na yàlla guddal sa fan sëriñ bi wax na ni nag mi ngi sant bu baax sëñ Abdou Khafour mii mu sëñ Moustapha Mbacke moom seex ma nee na jémb ñëw na fi indi teraangaam ñëwaat tey nee na mi ngi sant rakkam ji di soxna maam Fatou Mbacke mu sëñ Sidi mu sëñ Abdou Lahat nee na koy gërëm mi ngi gërëm it di soxna maam Fatou Kebe mu soxna waalo moom Serigne Saliou di gërëm bu baax soxna Muxsinatu moom Serigne Sidi moom Cheikh Abdou Lahat di sant bu baax it di soxna moomi moom sëñ Dame Atta journée bi ñu ko jàppee nag ba bisub tey añ ak reer Adja Soore Badiane parkingu Xaadim Gueye sëñ bi wax na ni nag nee na nag ummi Idrissa Gueye sëriñ bi nee na mi ngi koy sant. mi koy gërëm ni xaadim balaka Afrique sëñ bi sant na ko sànq waaye nee na nag mi ngi sant jàmbaar jàmbaari seex sidaati ay dara doomi seex na seex taali buya doomi seex na seex saddu muy seex yaasin dugure addu fi bi ci laay wal naa si naw mu nee na mi sant bu baax soxna musti sàll mu soxna as mu seex mamad faadal ni jërëjëf léegi ñoo ngi jox